kullu man daxala képp ku dugg rek fi islaam ci islaam xaatama mu dog ko xawma ma aw nitam minal kufaari ci yéeféeri bu njëkkoon képp ku dugg ci islaam rek ay mbokkam dañ koy ba wattaxasu ñu jàppee ko addoon mu di noonu ba pëncëm yàlla lii mën naa des mooy boo jubee rek ña waroon a dimbale danañ la dog jàppee la seenam noonu rek laa wax de waaw abdullah ibnu salaam nag waaw daal di tawal yonent bi ne ko suñu nit ñi bàyyi nañ ñu amatuñ benn mbokk de fa qaala moo allahu yàlla yàlla ne innama waliyukum naka seen naka ka leen allahu moo di yàlla wa rasulu ak yonentum walladina gaa ñi nga xam ne amanoo gëm nañu alladina mooy ñi nga xam ne yuqimuuna danañu jubala salaata julli wa yutuuna danañu joxe zakata zaka wom te fekk ñoom raakiuuna way rukkoo lañu rek laa wax de ay xaashoona way toroxlu lañu fa baqee mu des haadal hukumu bi lay attee ilaa ba bis man radiya ku gërëm billaahi ci yàlla rabban mu di boromam wa bi islaami gërëm lislaam diinan mu di diine fallaahu yàlla waliyuhu aji méngale ko mu aji dimbale ko wa rasuluhu ak yonantoom wal muminuun ak way gëmi jamian mboolem seen kon yàlla def ne képp kuy julli rek gëm yàlla ak yonentoom xamal na yàlla ki dimbale te dañ mukk di la dimbale yonent bi sa ndimbal rek la wax de waaye jullit ñi danañ la dimbale yan jullit jullit ñi julli te nangoo joxe asaka tey toroxlu ñooñu ñooñu nga xam ne danañ dimbale waa jullit ñi rek laa wax de nee nañ laaj ma ngi junj Imam Ali daf doon julli am kuy laaj ci sarax mu dindi jaar ba fekk ma ngay rukkoon daal di ko jox yàlla tagg ñi nga xam ne ñoo ngi génne sarax fekk ñu ngi rukkoon rek laa wax de suba zakatu waaw sarax nga koy firee kon ku gëm yàlla rek yow boo dee jullit xamal ne yaa ko war a dimbale waaye daal léegi safaan bu mu am jullit ñi gàccaal seen i mbokk jullit rek lañ fi nekkee gàcc mooy seetaan ko de koo mën a dimbale nga seetaan ko dimbale woo ko xam nga ne loolu du meloo jullit ña ko waroon dimbale banañ ko yow mi ko war a jàppale nga baaxati ko kooku yàlla ak yonentam rek la des de omane tawalla ka méngoo laa yàlla wa rasulu ak yonentam walladina gaa ñi nga xam ne amoonoo gëm nañ fa yuinuhu mu dimbale leen wa yansuruhu mu jàppale leen na xam ne fay nees ba laa naka kuréelu yàlla gi hum ñoom alxaalibuuna ñe de way not ya li nasri yi ngi dimbale yàlla iyaahum ñoom yàlla ne képp koo xam ne ni ma ngay dimbale diine yàlla ji di dimbale yoonu yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu mu gis ngay def lu baax rek nekk ku baax mu dimbale la ci loolu ngay def kuy def loolu na xam ne kuréel googu muy dimbale ñooy kuréel guy not maanaam na xam ne ci ndam rek lay mujj rek laa wax de loo cee déggee kuy dimbale ab kéeféer di dimbale ku wuteeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw di dimbale ñu bon ña seetaan ñu baax ña nanga xam ne si perte rek ngay mujj ndax kuréel googu ngay dimbale kuréel gu ñuy not la du mos a not <clears throat> kon lii lañu yàlla sant mooy julit julitey mbokkam moo ko war a dimbale waaye léegi daal waaw julit ñi ñooy lor julit ñi julit ñi ñooy seetaan seeni mbokki julit de dimbale wuñ lu mooy seen bakkan bu ne yaa ayyuha alladina amanu e yéen gaa ñi gëm yàlla laa tattaxisoo bu leen jàpp alladina ñi nga xam ne taxasoo jàpp nañ diinakum seen diine usuwaan muy luñ yejji walaa yi ban muy muy foo rek laa wax de laa ji lu ko tax wàcc wàcc na ci naafiq yi ba nga xamee ne yonent bi sallallahu alayhi wa daf doon diisoog saxaaba yi ci lan lañ war a xam leen waxtu julli jot na ñu ne nañ taal sawara ndax buñ gisee saxar ci ci bëccëg gi rek ñu xam ne waxtu wi jot na buñ gisee leer gi ci guddi gi nag ñu xam ne waxtu wi jot na de yonentu daal di sib safara <clears throat> ñu ne nañ dóor junjung yi mooy nasaraan yi di dóor de yonentu sib niroog ñoom ah ñu daldi di tàqali ko bañ tëddee saaba yu bëri daal di gént noddu ñëw wax ko yonent bi waaw alquran saxal loolu de nee nañ noddu waxtu julli jot nag ñuy noddu rekk yow li ne bismillah ma ma ma ma lii moom mooy ban diine nga xam maam maam ñu ñuy xootee julli man daal di xaw ma Muhammad fan la jëmee nit ñi ah ñu ne nodd mooy mooy nga xam mbaam ñooñu ñu ne yejji lislaam dugg na ci laaj yi képp kuy xeeb lu baax di ko xejji di ko suufeel di ko ñaawal de moo xam nga jël ay alquran yi di ko théâtre wala nga jël dégg nga li lislaam fonk muy jumaa yi imaam yi borom xam-xam yi di suufeel waaw wala nga jël atteb yàlla di ko di wane ne atteb dof la wala atteb nangam rek yaag yow di yéen a bokk jikko rek laa wax dugg nga ci laaya ji <clears throat> nazala wàcc na azali fi munafiqina ci naafiqi wal yahud ak yahudi nakaana nekkoon na rasul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam shadiidal ihtimaami di tag ak bi shay'in ci dara joo xam ne yunaadi dana woo annaas nit ñi ila salaati jëm ci julli fa shaawara mu diisoog ak saxaabata saxaaba yi fa qaal yonent ne mbir moo xam ne yoon leenu dana xam ne bi awqaati salaati ci waxtu julli minum am na ci ñoom man qaala ku wax nuuqilu nañ taal naharan sawara isaara buñ gisee duxaanan safar fi nahaari ci bëccëg gi yàlla mu ne danañ ne an nal waxta naka waxtu bi balaxa jot na mooy daa kaana bu nekkee fi léeri ci guddi yi isaa raw buñ gisee a nuur a leer yàlla moo danañ waxtu yi xat balaxa jot na fa kariya mu daal di sib annabi yonent bi sallallahu alayhi wasallam an naara safara yonent ne déedéet safara moom baaxut minum am na ci ñoom man xaaral ko wax nadribu nañ dóor jarasan ak sonar fa kariya mu sib aljuruusa sonar yi de fa tafaraqoo ñu daal di tàqalikoo fa jamaatun mbooloo a saxaabati si saxaaba yi kullum ñoom ñëpp raa gis ne razana noddu fi naw mi ci nelaw bu ko defee ba saxaaba te tëddee kenn ku nekk gis noddu ci nelaw raa gis na abu sada al azan noddu wa bilaal gis na ko wa jamaatu nag mbooloo si saxaaba yi de faamara mu digle annabi yonent bi sallallahu alayhi ci noddu ci yonent ne aywa noddu baax na fa saaru ñu mujj nag yu azinoon di noddu de ba waxtu jullee bañ noddu allahu akbar fa day ka mu daal di ree al yahud yahud yi day kan ak ree shadidan gu tat yahud yi daal di ree ba xaqataay xaaloo ñu ne maa naa gisuñ diinan diine aqbaha gu gën bon min diini muhammadin ci diine muhammad ñoom ñooy nar ñu ne haada lii naxiqul ximaar yi ngaax mbaam la mbaam muy sab rek la allazi bi nga xam ne jaa andi na bii ci moom maata andiwut bii ci moom diinun diine xatul mukk ngaax ak mbaam gii diine mosu ko andi moom mu andi ko <clears throat> dugg na ci mboolem kuy suufeel àtte jullit ñi yàlla àtte dara nga di ko wax ci façon boo xam ne yaa ngi koy xeeb wala ngay xeeb yonent bi wala ngay xeeb daal yi lislaam màggal dugg nga ci laaya ji fa qaala yàlla ne yaa ayyuha alladina amanu ee eh yéen gaa ñi gëm yàlla laa tattaxisoo bu leen jàpp alladina ñi nga xam ne ittaxasoo jàppee nañ diinakum seen diine wasuwan muy luñ yejji maasu an bii di luñ yejji wala iban ak foo rek laa wax de ñi nga xam ne dañoo jàpp ne lislaam ay fola yu suufi la yu gàtt xel la ñooñu bu leen leen jàpp mukk ñu di seen kilifa mi leen lazina ci gaa yi nga xam ne wutu joxe na leen alkitaaba téere yi mooy yahud ak nasaraan yi ñi koy xeeb lislaam bàyyi leen leen min qablikum njëkk leen ñiñ joxoon téere njëkk leen buñ demee ba wet di ji di ko ñaawal bu leen jël ñooñu def leen ñu di xarit de wal kufaar ak xéeféer al mushrikiin ñëwee bokkaale bu leen leen jàpp awliyaa ñu di xarit wattaqullaha ragal leen yàlla ba bañ a xaritoog ñooñu in kuntum na nekk ngeen mu'minin di way gëm de bu dee gëm ngeen yàlla daal bu leen xaritoog mukk mbooloo moom <coughs> wa izaa naadaytum bu ngeen xootee ay daawatum woote ngeen ila salaati jëm ci julli bil azaani ci noddu ittaxazuha jàppee nañ julli googu ay asalaatu julli gi huzuwan mbir mu mbir luñ yejji wala ñu ban fo bi an yastaaziwu mooy ñuy yëg ji di ñaawal bihaa ci julli ga wayte daa ko ñuy reetaan ba xaqataay inde samaani azaani jamono dégg ak nodd de buñ déggee nodd rek ña ngay ree di kekku di ñaawal julli ñi ci nodd ga ñuy def zaalika tixaasu boobu lay jàpp gi ñu jàpp julli mu dig luñ yejji bi annoom ci bi sabab bi annoom ci sabab ci ne ñoom xaw mu nit la ñu a xel wuñ de lay sa nekku andoom fa ñoom àqulun xel bu ñu xel duñ xeeb mukk nodd duñ ko reye ndax xam na ne moo gën a rafet ci li nit di xootee julli falasan noddu lam yakun nekkut sabata di sax bi noomin ci nelaw faqat dong de li jamaatin ngir am mbool ngir gis ak mbooloo mina sahabati sahaba yi nekkul ne noddu mbooloo ci sahaba yi gént giñ ko gént rek moo tax mu sax déedéet bal li fi nekk sabata sax ne bi haajir aaya ci bile laaya ay ba tey laaya ji rafet na noddu de haajir aaya bile laaya asbatal saxal na hukumal qaala wana rasul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam al muazin wala noddkat yi at wala ñoo gën a gudd xanaa ci doq yowmal qiyaamati rek bis penc ñoom ñooy tiim ñëpp yowmal qiyaamati rek laa wax de noonu la leen yàlla jagleel ngir teral leen maanaam ñooy gën a siggi rek de jiw moo gën a gudd doq maanaam moo gën a siggi moo gën a am xewal noddkat yi ñoo la bokk wa qaala wax na moom yonent ne inna arbaatan naka ñeent laa taakoon du lekk araadu suuf ajsaadum seen jëmm ya isa maatu buñ dee ñeent a ngi nii ñeenti façon nit a ngi nii suuf daf leen xormaal ba buñ dee sax seen jëmm du yàqu yàlla ñu waaw ña xam ne ne yàlla mën nañ cee bokk rek laa wax de alan biyaaw yonent yi loolu moom mënatu am yonent yi laa taakul du lekk alaardu suuf si ajsaadum seen jëmm yi yonent yi suuf du lekk seen jëmm yi waxamalatu shariati yi ña gàddu sharia borom xam-xami sharia yi al muhammad yi bi ko muhammad ñooñu suuf du lekk seen jëmm alxulamaa borom xam yi seen xam-xam suuf du lekk seen jëmm waxamalatul quraan yi ña mokkal al quraan ña gàddu al quraan ñoom suuf du lekk seen jëmm ñi gàddu sharia ak mooy borom xam-xam yi jëfee seen xam-xam ñu ñoo ñu gàddu sharia suuf du lekk seen jëmm de ñamu ko alquran suuf du lekk seen jëmm wal mu ak noddukat yi de noddukat yi it suuf du lekk seen jëmm de waa ñeent ñii daal buñ dee buñ leen suulee lum yàgg-yàgg seen jëmm yéenam meloon rek lay mel suuf du ko lekk mooy yonent yi ak borom xam-xam yi jëfee seen xam-xam ak ñi gàddu alquran ak noddukat ya man azana ku noddu saban si nii na juróom-ñaari at laataa ku du lekk alaatu suuf ji sa doo yaramam wax nañ ne juróom-ñaari at ku ko noddu suuf du lekk sa yaram <clears throat> boo dee buñ la suulee it dangay mel ni rek nañ la suulee woon woo moom noddukat ba fii safira fiil naa yi anbiyaa yi mu ngi sa peep waaw way yëkkatiku yonent yi wa xamalatil shariati ak ña gàddu sharia wa xamalatil quraan yi ña gàddu alquran dégg nga noddkat yi wal mu azin ak noddkat kon ku noddu juróom ñaari at yàlla dana la boole si sàpp bi yonent nekk ak ñi gàddu ak ñi gàddu alquran ak fa noddukat yi nekk kon boo bëggee daal ñu boole la ci noddukat yi nga xam ne suuf du lekk seen yaram noddalal yàlla juróom-ñaari at de <clears throat> wuyun dabu sopp nañ xikaayatal azaan nettali noddu li ku li man samewu ñeen képp dégg ana lan mooy nettali noddu mooy isa qaala bu waxee allahu akbar taqulu nga wax allahu akbar وإذا قال أبو بوحي ممنوع بكذبه أشهد أن لا إله إلا الله تقول وحي أشهد أن لا إله إلا الله وإذا قال أبو بوحي ممنوع بكذبه أشهد أن محمد رسول الله تقول يوين قواخ أشهد أن محمد رسول الله وإذا قال أبو بوحي ممنوع بكذبه حي على الصلاة تقول يوين قواخ لا حول ولا قوة إلا بالله لا ولا دل بن تغي ولا قوة دل بن قطن إلا بالله إلا وإن شاء الله وإذا قال أبو وحي محمد كتبي حي على الفلاح تقول نعم، ما شاء الله ونصوب يلا كان نكنا وما لم يشاء نصوب يلا لم يكن دونك وإذا قال أبو وحي محمد كتبي الصلاة خير من النوم تقول إن أنك صدقت وعند دق وبررت وعند لبعد وإذا قال أبو وحي سيلي قام xad xaamati salaatu boo waxee xad xaamati salaatu julli gi taxaw na li xaamati ci li nga ne a xaamaa yàlla na taxawal ko allah yàlla waa daa tam saxal julli googu way bil xawle ci wax wal fiil ak jëfande li xaamati ci jamono li xaam ay bu waxee moom kay li xaam xad xaamati salaatu julli gi taxaw na taqul yow na nga wax ne a xaamaa allahu yàlla yàlla taxawal julli googu waa daa tam saxal ko watanaa du nga fekk ngay buur ay ren ba tey de buy wax julli gi taxaw na del jug booleeg wax ñaan gi jamaan gi boole benn ijaabatil fi'liya diggante huyug jëf te mooy jug gi wala ijaabatul qawli ak huyug wax kon lii mooy nettali nodd bu ne laa kubar nga naan laa kubar ashhadu an laa ilaaha illallaah nga wax ko ashhadu anna muhammadan rasulullah nga wax loolu de waaw hayya ala salaati nga ne laa hawla wala quwwata illa billah hayya ala nga ne macha allah kaana wa maa lam yashaa lam yakun bu dee fajar la julli moo nelaw nga ne sadaqta wa bararta bu liqaam la bu waxee qaamati salaatu nga ne qaama allahu wa adaamaha boole koog jub rek laa wax de <coughs> wayu kuréw sib nañ allahnu yàq fi adaani ci noddu minum am ci ñoom noddkat yi ma ne xulu ki wax ne allahu akbar allahu mooy ndax yàlla moo gën a màgg waa daal yi istifaamu laajte la de kooku baaxut minum am na si ñoom ma ne xulu ki ala salaa salaa du ci boole alkubeer ga de du taxaw ci alkubeer na hayya ala salaa waaye danaan hayya ala salaa de mooy ñëw leen ci safara wasala sala annaaru moo di sawara yàlla daf ne ñëw leen ci julli gi yow nga ne ñëw leen si wa minu am na ci ñoom man yaqulu koy wax xayya alal falaa dagg haaga xayya alal falaa waaye moom du wax loolu de danaan xayya alal falaa taawal falaa falaa jamu falaatin mooy jamu falaatin mooy asaaraaw àll de xayya alal falaa moo ñëw leen ci àll bi alal falaa moo ñëw leen ci texe gi boo ne hayya alal falaa nag moo ñëw leen ci àll bi àll bi loolu baaxut de am nañu allahu akbar xëcc baaga te loolu mooy yàlla ay junjung la waaw boo xëccee baaga rek mu firi ay junjung de su ko defee loolu it waaw baaxut yu xaafisu na wattu alal alfaadi ci baat yi laa yu xayru bu mu soppi minaa ci baat yi ci dara wayu azinu muy noddu nag lillaahi ngir yàlla tabaaraka wa taala kawe na faysan kon yakun dana nekk mi ne doxaati bokk ci way xoote ila laay jëm ci bu fekkee mu ngay wëttu baat nodd yi ci dara te nodd gi it yàlla rek a tax na xam ne mu ngi bokk ci ñuy xoote jëme ci jëme ci yàlla <coughs> faysan kon yakun dana nekk mi ne ci way xoote ila laay jëm ci de bu ne axsanu kenn gënu rafet xawlan wa mi man daa ci ko xoote ila laay jëm ci yàlla waa tam jëf saalihan lu baax wa qaala mu ne inna ni naka minal muslimina maa ngi bokk ci way jébbalu ñu kon képp kuy noot rek na xam ne mu ngi xoote jëmee ci yàlla <coughs> adduhaatu way xoote ila laay jëm ci yàlla al anbiyaaw mooy yonent yi ñooñu ñooy xoote jëmee ci yàlla wal mujaahiduun ak way jihaad yi ña ngay ci yàlla wa suyuux ak sëriñ ci almuallimuuna ñay jàngale ñooñu ña ngay xoote ci yàlla wal muazinu nag noddukat yi ñeent ñi daal ñooy awetekat yi jëmee ci yàlla de ñooñu nag suuf du lekk seen yaram ba mukk qul waxal yaa ahlal kitaabi yéen ñooñ téere ba lu tax a wàcc laaya jooju nasala wàcc na moom laaya jooju la maa qaala moom waxee al yahudu yahud li nabi ña yonent bi sallallahu alayhi wa ko bi man tuuminu kan nga gëm ci yonent aw wala ñu ne ko bi man nuuminu kan la ñuy gëmme ne ci yonent yi yow yi laaj yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko ban yonent lañ war a gëm fa qaala yonent ne billaahi nañ gëm ci nañ gëm yàlla wa ma unzira ak lañ wàcc iday naa ñun al ayata balaa ji jeex zakara ba mu tudd wax nañ gëm yonent yi Ismaayil wa Isaaq wala Yaquub wala asbaati wa Isa ibnu Maryam hmm? tudd na daal lu mën a xew a ah, yow di ne xaalo yow di ne laa naa la ma xamuñ diinan diine charran gu gën a xees min diinikum seen diine tawdu da ngay kon te sa insa min anbiyaay ci yonent te insa nekkul lu may doomi njaalo wanaa ñun laa nu duñ gëm bii ci insa wala bi man amana du caageen képp ku gëm bii ci insa yow yaa ngoogu laaj nañ yonentu ñan lañ war gëm yonentu limal gëm yàlla gëm li ñu ci ñun gëm mboolem yonent yi ba mu tudd ñenn ci yonent yi mu tudd daal Insa ñu ne ko ñun xamuñ diina ndax Insa yonentu la képp ku gëm Insa ñun duñ duñ la gëm ndax gëmuñ Insa de xaala wax na taala yàlla mu ko mu ne waxal yaa ahlal kitaabi e yéen yahuud yi hal tanqimuuna ndax da ngeen ay tunkiruuna da ngeen weddi min naa illaa aman naa maanaam weddi wu leen min illaa aman naa lu mooy gëm giñ gëm billaahi ci yàlla wa ma unzila ak la wàccee nañ ko ilayna jëm si ñun wa ma unzila ak la wàccee nañ ko min qablu njëkk ilal anbiya jëm si yonent yi de dégg nga mu ne yéen yahud lu may gëm giñ gëm yàlla gëm la yàlla wàccee ci ñun gëm la yàlla wàccee ci yonent yu woon loolu ngeen wedde dégg mooy baleen baleen gëm leen billaahi ci yàlla wa ma unzila ala ibrahima وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصبات وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ده من كل تنقيت يلا واجه الهاجر <clears throat> بون وانا أكثركم ني أبتين فاسقون ويجن توبلين أي كاتيورلين قل وهل هل أنبئكم من أحد من القبار أخبركم من أحد من القبار بشير تلو هز من ذلك تي loolu de ay min ahli zalika ci ñooñ loolu masubatan ci fay maanaam sawaban ci fay bi maanaam jazaan fay indi laay fa yàlla de yonent na leen bu dee da ngeen a wax ne sama diine ji mooy diine ju ñu jàpp ci diine ji ñooy ñi gën a xees bu dee loolu wax bàyyi leen ma xibaar leen ñi nga xam ne seen fay ci yàlla moo gën a xees ku ne nga ne ko ñoo ñooy ñan mu ne oh, kooku man mooy ka xam ne laa anoo rëbb nu ko allah wa yàlla abaadoo soril na ko rahmati ci yërmandeem yéen yahud yi nga xam ne yàlla rëbb na leen soril leen yërmandeem kay xam nga ne yéen a gën a xees waxati ba mel moom yàlla ali ci waa jooju wa jaala mu def minum ci ñoom alxiradata ay golo wala xanaasira ay mbaam xuux bi maski te mooy mu masax leen ñooñu ku leen gën a yées <coughs> ñu jàpp léewari jàpp daal nañ xam ne ñoom ñooy ñi gën a xées ndax ñoom la yàlla mm, soril yërmandeem mere leen def leen i goloo ki mbaam xoox wooma nag ka xam ne abada jaamu na taaxuta seytaane de bi taxaat yi topp ko mooy xéféeri mbàkke yi jamaatun mbooloo wala boog mooy yahud yi nga xam ne su jootal lañ rek xërëm ndax gërëm lu abu sufyaan ak mbooloom jamaatun mbooloo minum ci yahud yi sajadoo sujjoon nañ lil jibti ñeel jibti wa taaxoot ak taaxoot ay xërëm lañ de ta xóor na leen ne jaamu xërëm moom du diine waaw ñoom jàng nañ ba pare di def loolu lama taw bañ dikkee ilaa abi sufyaan jëm ci abi sufyaan bi makka ca makka ci lañ sujjootal jibti ak taaxoot ndax abu sufyaan dañoo bëgg a fasanteeg ñooñu ko lëree abu sufyaan ne leen ba te ngeen sujjootalee jibti ak taaxoot ñu daal di ko sujjootal ne diine waa Màkka ñoo gën diine yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu ne ulaayka xam nga ne ñooñu ne gaa yi charnu ñoo gën a xees makaanan ci barab tamisan kooku makaanan tamis la de ñuy jàng naxoo ko xam lay sa nekkul loom dina ñeel ila naar lu may safara ñoo gën a réer an sawaay sabil yi ci yoon wu jub wala mooy tariqil xaq yoonu dëgg wa waadalu waaslu sawaay ci saxanab sawa al wasat mooy lu digg doomu ñoo gën a réer yoon wu digg doomu bi maanaam yoon wu ci yàlla kon alquran leeral na la melo yahud ngir nga man leen a moytu loo rek a tax mu leeral na la seen i bon ak seen ak xees ak toroxtaane gi ñu nekkee way daa jaawukum nem dikkal nañ leen mooy munaafiqul yahudi naafiq yahudi xaaloo wax nañ ne aman naa gëm nañ waxat daqalu fekk dugg nañ aleykum ci yéen mu mutalabisiina di way lamboo bil kufri ci weddi yàlla woom te ñoom it xat xarajoo génn nañ mais andikum tukkee fa yéen mutalabisiin di way lamboo bil kufri ci wedd yàlla ay ren ba tey mu xat xaraju génn nañ bii di lamboo xeefeer de bil kufri ci xeefeer wala yow mi noo gëmuñ mu ne naafiq yow di buñ ñëwee ci yonent bi dañ naan gëm nañ buñ génnee fekk ba ñuy dugg kéeféer lañ duggaale ba ñuy génn kéeféer lañ génnaale kon gëmuñ de wala yàlla alamu aji xam la mu bi ma kaanoo ci la nekkoon nañ yàgtu moo na di ko nëbb mel ne fàq ci naafiq de naafiq gañ loon nëbbu yàlla xam na ko watara gis nga kasiran ñu bëri minum ci yahudi al yahudi yahudi yu saare ña ngay njëkkalante ay yaqaw na ña ngay daanu sariyaan ci lu gaaw filis mi ci bakkaar ay fil kasi bi ci narde waloon du waañ ak ak tooñ ak zulmi tooñ waa kilim ak lekk gi ñu lekk a soxta alal ju xaraam mooy al alal ju xaraam karusha comme ngeri de ñu bëri ci yahudi fuñ gis bakkaar duñ moytu daa dañuy gaaw rek dugg ca ñoo dàq tooñ ñëpp dàq lekk alal ju xaraam ba léegi loolu lañ fi nekkee riba yi ci àddina yu ci bëri yow yaa ko fi samp rek laa wax de système bu bon bi nga xam ne xew na ba xew ci réew yi jullit ñi ñoo ko tasaare ci àddina bi tooñin ñoo ko fi dàq ku leen neexul rek ñu dal sa kaw duma wala def lu leen neex la bi sa bon na maakaana la nekk yaamaloon doon ko def de ñoom yahud yi amaloon seen jëf bi bi hada ju bon la ju yàlla ngañ de mooy di tooñ waaw doo moytu bàkkaar di rekk alal ju haram yàlla nee na loolu lu bon la de law laa yenaahum ana lu tee tere leen rabbaan yoona borom xam-xam yi hal laa naahum ana lu tee mu tere leen alors ma borom xam kam yi ana amilu na yi jëfee seen xam-xam de kon am kam xam di ko jëfee rek doyut waaye foo gis lu bon war nga mën a wax ne lii lu bon la tere ko nit de buñ toppee baax na buñ toppul rek yow sa baat gudd na loolu la yàlla santaane waaye naan sama yoon nekkul ci daal xanaa boo lottee soo lottee daal amutoo pexe ndax boo waxee bakkan tuur wala yu demee noonu am nga ngànt waa waaye daal ragal coono wala ragal ku la dog wala ragal ku la ŋàññi mayut la ngant ci nga bañ a leeral dëgg tere ab caaxaan ndem xam nga rek te yaa ngi jëfee ci xam-xam buur ne lu tee mu tere leen rabbaan yu ne borom xam-xam yi jëfee seen xam-xam wala axbaaroog foo di yi minum ci yahudi xan xawalim ci wax gi ñuy wax al isma bakkaar mooy alkaziba nar de waa kilim ak lekk gi ñu lekk ak sootaale ju araam lu tax borom xam-xam yi ak foo jàng gis yahud yaa ngi wax loo xam ne ni waxi naar kese la du dëgg taayewuñ leen kon waxi caaxaan foo ko dégg war ngaa wane ne li nar la xaaye ko rek laa wax de li la yàlla wax moom xaw ma lu nit ñoo nag lu tee gisee yahud di lekk lu araam xaayewuñ leen alquran a ngoogu képp kuy lamboo sangoo waa eh, ku ku jiitloo ak ak mbon boo jàngee alquran rek mu simil malaan gi ba nga xam ne la nga nekkee baaxut yow nag yaay xool noo ko taawi de waaye mu ngi wax ak ñëpp de la bi sa bon na maakaano lañ nekkoon es na woon di ko liggéey de mooy tarku naa yin bàyyi tere ga alquran ne borom xam-xam yooyu luñ def aka bon defuñ lenn lu mooy ba tere lu bon ku ne yàlla ngañ na bàyyi giñ bàyyi tere lu bon de ne loolu bon ashadu ayatin laaya ji gën a tàngaala loolu olamaa yi ci borom xam-xam mooy laaya ji lawlaa yanhaahum rabbaaniyuuna wal ahbaaru an qawlihim isma wa aklihim suxta labisa ma kaanu yasnauna ah lu ko gën a bon nag xew na ana lu gën a bon bañ a lu bon gis lu bon ba bay noppi ci muy waxi nar nga xam ne lii ay nar la nga noppi ca wala jëf ju bon nga xam ne lii lu bon la nga noppi ana lu ko gën a bon lu ko gën a bon mooy encouragé ñu bon ña rek laa wax de nit kuy wax nar nga di ko encouragé di ko tagg waa ndax intérêt àdduna waaw gën a bon bañ ko ko waaye <coughs> na lu gën a loolu ana lu ko gën bon ana lu gën a bon noppi ci lu bon aaye woo ko ana lu gën a bon waaw encouragé waaw ku bon mooy xeex ñey dindi lu bon képp koo xam ne ni jug na rek pour waaw tere lu bon dindi ko ci kaw suuf fexe mbaax te saaroo nga di ko xeex wala nga gàccaal ko mooy seetaan ko dimbale ko waaw looloo gën a bon rek encouragé ñu bon ñi de kon gàcce la ci fóodee mu gis lu bon noppi ca yàlla nee na fóode boobu nu def bon na bu ci boolee nag di tagg ku bon kooku di ko encouragé di ko yëkkati waaw di ko màggal waaw kooku def na li gën a bon waaye yenente ko mu em foofu rek ba ñuy wax lu baax moom ñuy wax lu baax ñuy dindi lu bon ñuy dindi lu de waaye duñ am foofu ku jug pour dindi lu bon loolu ñu ne ko noppil sa yoon nekkut ci ndax moomoo nit ñi rek la wax de dégg nga waaw loolooy li gën a bon foofu la jamono toll nag <coughs> wa qaala waxnaal yahud yahud yi lamma dayaqa a mu xatalee allah wala alayhim ci ñoom bi takzibim ci wedd gi ñu weddi annabi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam baadaan kaanoo gannaaw bu di ëpp ak naasi di ëpp ci nit ñi maalan alal yahud yi dañoo amoon alal ju weddi yonent bi yàlla natt leen ñu ñàkk nag amuñ amutuñ tus waaw ngir bàkkaara bi yonent bi saaru mujj na ñoom yow wari fuqara di way ñàkk bañ demee ba ñàkk amuñ dara nag ña ngay tuumaal yàlla yow te ngooku ñoo gën a bon yàlla nett lu seen mbir lu may nga moytu leen a jikkoo seen jikkoo loolu rek tax yàlla nettali seen mbir xaalo wax na ñoom yahud ne yeddullaay loxo bi yàlla maxlootun luñ gëx la maqbudatun luñ téere de yàlla daal dañ ko xeew dañoo xeew loxe ñoo di wax diw loxo yi dafa dagg ñu ne yàlla loxo mi waaw dañ dafa ngëbu yàlla du joxe dara dàkkantalam nay la de loolu lay di wax buur fayu ñaanal leen xullat yàlla nañ gëx ay diim seen loxo am saka yàlla na téye àllaa ay diim seen loxo an fi'li kullil xayraati ci def mboolem yu baax yi haasa lii duwaawu laa la alim ci ñoom de yàlla nag foor na lool waaye léegi-léegi mu tontu <coughs> ngir wane ñu baax ñi ñu bon ñi loolu moo di njugumaal quraan ñu nekk ci lu baax dana wane jëf yu baax yi ñu nekkee tagg leen yëkkati leen ngir nit ñi mën leen roy mën a jàpp seen yoon waaye ñu nekk ci ci mbon alquran weer rek la leen di def waaw gàccal leen leeral seen mbir ngir nit ñi mën leen a moytu mën a xalamee ci ñooñ de sutura moo di lan sutura mooy nit ku baax kuy def lu baax rëccile waaw ngir njuumte nga nëbbal ko ko ndax ku mat waaye kuy tasaare mbon ci kaw suuf di yàq ci kaw suuf nga nañ ko suturaal buñ ko weer yow yaa xar ak nit ñi loolu du sutura de loolu mbon rek la moom la yàlla ŋàññi léegi ci gannaaw <coughs> yahudi ne yàlla dafa nay yàlla ne leen yàlla yàlla seen loxo haga li doaw ñàlla arim ci ñoom yàlla yàlla téye loxo ba du ngeen mën a defati leen lu baax moo tax yow ci kaw suuf wala yi noonu rëbboof rëbbeef nañ leen bi ma xaaloo si sabab su lañ wax wax jooju tax na yàlla rëbb leen sori leen yërmandeem moo tax bëri na kàddu gu nit yëkkati xalak na ko rek laa wax de gii rek dundam balli fi nekk daaw ñaari loxo yàlla ya mabsuutataani ñaari loxo yuñ tàllal la mu baalaxatun kooku jotal la fir was fi ci melo bil juudi ci tabe yàlla loxo mi melut ni suñuy loxo boo waxee ñaari loxo yàlla yi dañ koo tàllal nag dafa bëgg yàlla dafa tabe yàlla tabe moom loolu du lu ñu war a ndax lu xam lu ne moo ko joxe wasan naa ñaareel naa alyedda loxo lii faadati kasrati ngir jariñ ak bëri rek laa wax de yàlla ñaari loxo la wax ngir wane ne li muy joxe lu bëri la isgaayatu maa yabzuluhu dooyab la dana ko joxe asaqiyu aji tabe min maali ci àllam an yoxtee mooy mu joxe bi day ci loxoom ku tabe daal li ëpp ci li muy joxe mooy sëq si ñaari loxo yi joxe loolu moom mënul joxe lu raw loolu yàlla nag noonu ne moom it noonu lay joxe de maanaam daf bëgg wax ne doyeb tabe yàlla waaw def na ko rek laa wax allahu yàlla tabaraka bani wa taala kawe na ya loxo yu mabsuuta daal ñaari loxo yuñ la yàlla na it de yàlla na joxal boppam dimbale ñu bañ doylu waris képp ku dul moom yadullaahi loxo bi yàlla lay sa nekku jaaraatam di cër waaw comme suñuy loxo bi dalil ngir tegtal bu mooy an na yedde naka ñaari loxo mi kilte yi ma ñaar yëpp yaminu ndeyjoor la ñaari loxo yi nag bu doon cër ko benn bi ndeyjoor la benn bi càmmoñ la de waaye yàlla amul wàll moo tax munul am loxo yoo xam ne kii day nekkee ci wàll gëre kii nekkee ci wàll gëre ñaari loxoom yëpp ndeyjoor la ndeyjoor mooy loxo bi def yu baax maanaam yàlla lu baax rek lay def de waaw hadi sifaatu yi de mero ëllëti xam ne ولا درنا في القران جاء القران ولا حديث جاء حديث دم يتدل على الله ولا تانك ولا يدمنون كان نكون اسلف مغني ني مو ني يك نيا يقررون ديكو سخال على ظواهر اكي ظاهرا كلا فين ويكلون ني وكيل المعنى معنى الى الله جل جلاله تبارك وتعالى كبنا مغني دار بن يالله امنا لخو ني يالله امنا لخو نيم كو واخه واي لخو ني مل موم دنج دغ dañ naan yàlla am na loxo ci nam nam nam ca nammee de maanaa loxo bi dëgg-dëgg nag ñoom dañ naan yàlla rek koo xam ñu ne aman naa gëm nañ bii ci yàlla ala muraadi laay ci la ci yàlla namu aman naa gëm nañ bii ci wax yonent bi ala muraadi rasulillahi ci kam ni ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam namu de wala mu taaxiroon way mujj yi nag yu awiloona dañuy taawil ñoom fa awaloo taawil nañ al yedda loxo bil qudrati ci kàttan waaye loolu ak njumte la faysa awaloo buñ taawilee al yadda loxo bil qudrati ci kàttan fa maasa yafaloon nan la ñuy def ak bile deeni ci ñaari loxo hunaa fii yàlla ne ñaari loxo mi dañ koo tàllal te yàlla melawu mu xam rek benn melaw la du ñaar benn kàttan la am benn dégg benn gis waaw soo ne nag loxo yàlla mooy kàttanam kon mu ngi mel yàlla am na ñaari kàttan al qudratu kàttan yàlla waaye benn la waa si loxo bi nag tasniyatun ñaar la de wajaat dikk na moom loxo sax jamaan di mboolo ni ko sama banay na bi ay din asamaan ci yàlla nee na ci ay loxo la ko tabaxee de haasa lii jamun jamu la aksara ëpp na minis nee ni aksaru minis nee ni ëpp na ñaar laa na dari xamuñ xal sitatun mën ax juróom benn loxo la am samaaniyatun wala juróom ñetti loxo isan kon aswaabu lay njub an tatruka mooy nga bàyyi al yedda loxo ala zahiriha ca bitteem ca melo wu feeñ wa war nu fawi du fil maanaa ci maanaa bi la laay jëm ci yàlla tabaaraka bani wa taala de maanaa loxo yi yàlla rek ko xam yedaaw loxoom yi lay sa nekku yedee ni di ñaari loxo kama danaa comme nu mere ci ñun de ndax lay sa ka misli shay'un yàlla dara melul ni moom yunfiqu dana mu ko soobee min tawsi'in ci yaatal wërsëg wa tadyiqin a xatal wërsëg l'intiraad de ta critique ala yi di ko war yàlla mooy xool ku ko neex mu yaatal wërsëgam koo ko ne mu xatal wërsëgam kon kenn du ko critique te kum xatal sa wërsëg it dencal na lu ëpp lam la xañ ndax moom du def lu ñaaw de wala yesi dan na dana mu dolli kasiran ñu bëri minum ci ñoom ma alquran ji nga xam ne untila wàcce nañ ko ilayka jëm si yow min rabbika tukkee sa borom maanaam min alquran yi de maa ngi ci alquran la mbooloo mu bëri alquran yokku leen lu may tuxyaanan ak ak mbew wa kufran ak weddi yàlla li kufrim ngi weddi gi ñu weddi bii ci alquran kon la war a defar ñii léeg-léegi mu yàq ñële alquran nga xam ne ku baax moo la tax a baax ñu bari ci yow di alquran mbewte ak kéeféer la leen yokk waal xëy naa sànni nañu bay noom ci diggante yahudi ana daawata noono wal baxda ak mbañeel ilaa yawmil qiyaamati ba bis ba pencam yàlla mooy dañuy bañante wa kullu firqatin bépp kuréel minum ci ñoom tu xaalifu dana wuteeg al uxraa beneen kuréel ga te kullama awqadu saa yiñ taalee naaran sawara lil harbi ngir gër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li harbi nabi ngir gër yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam at faa fay na ko at faa fay na safara sa allahu yàlla yahud yi pexe muñ laal rek ngir waa fexe lislaam yàlla naqasal pexe ma moom la yàlla di wax ne saa yuñ taalee safara ngir geer yonent bi rek yàlla fay safara sa at faa fay na safara suuf allah yàlla de waaye sax danañu dox ñoom yahud yi filaari suuf si fasaadan ceeg yàq ay mufsidina dañuy yàq bil maasi ci mooy yàlla yàq si suuf mooy lan suuf si kenn mënu koo yàq waaye bu yàlla waxee yàq si suuf mooy aji waade am yow nga taxaw di gàllankoor nit ñi ci gëm ko waaw ak bëgg na saxal mbiram suuf ay waa yàq si suuf de ndax yaa tasaare moo yàlla mufsidina ña ngay yàq bil maasi ci moo yàlla de wallaahu yàlla laa yuhibbu du yoon mukk al mufsidina way yàq ña yàlla du leen fay de wala wax naa leen kitaab bu ne bu ne bu fekkoon ne waaw yahud yi amono gëm nañu bi muhammadin ci muhammad sallallahu alayhi wa sallam wattaqaw ñu moytu kéeféer al kufra weddi yàlla ñu moytu ko de lakka far naa kon kay ñu fo ñu faar anum ci ñoom sa yaadim seen ñaawteef wala daxal naahum kon ñu dugal leen jannaati naayim aljanaay xéwal rek laa wax de waaw su fekkoon ne yahud gëm nañ yonent bi sallallahu alayhi wa mooy tuye véer seen bon bon yi nekkee yëpp yàlla dana ko faar kon yahud yi yàlla di ŋàññi mooy ñu des ci yahud ga waaye ku ci dugg ci islam rek ay bon bonam faaru na yàlla dana ko dugal aljanaay xéwal walaw annahum bu fekkoon ñooñ téere bi muy yow rek nasaraan yi aqaamoo taxawal nañu aqaamoo jëfee nañu tawraat tawraat ay amiloo jëfee nañu bi tawraat ci tawraat wala injiil ak injiil amiloo jëfee nañu bi maa fii maa la nekk si ñaari téere yooyu wa maa fii maa la nekk si ñaari téere yooyu foofu moom al imaanu moo di gëm bi nabi ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam buñ jëfee woon tawraat ak injiil waaw te mooy gëm yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw kon au moins un jëlaat la wàcce nañ ko dem jël ci ñoom rabbihim tukkee seen borom laakaloo kon koy ñu lekk min fooqim seen kaw wa min taxti arjulim ak ci waaw seen ron tànk de kon yàlla da yu jugee ci asamaan ak suuf balal taw balal wërsëg yi meñ indi yàlla da xamal xam-xam yu kawe yi mooy xam-xam yu jugee yàlla. la jugee ci suuf nag mooy xam-xam yu waa xam-xami téere yi boo ragalee yàlla rek yàlla xamal la ko amilu buñ jëfe woon bi maa fii maa li nekk ci tawraat ak linjiil wa maa fii maa la nekk ci tawraat ak linjiil huwa imaanu mooy gëm bi nabi ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam de qad jaa dikk na zikru muhammadin turu muhammad fi tawraat ci tawraat wal injiil ak linjiil kulluhuma ñoom ñaar ñëpp mu Iisaa ak Muusaa yàlla yàlla waa doole leen xewal basara bég na nañ bii ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam de xaala wax na Isa ne saw fa azabu xal dem wasa yaatiikum dana mu dikka leen al baaraqliit baaraqliit mooy lan mooy rool xaqi roog dëgg wala nga Muhammad wala nga ne moo Ahmad de Isa nee na danaa dem baaraqliit dana ñëw waaw su ma fekkoon jamonoom koron ma ma di ko takkali dàllam di ko fompal tànkam waaw noonu la ko gënee for de buñ gëmoon loolu nag wa maa unzila ak la wàcce nañ ko ilayhim jëm ci ñoom te mooy alquran ji mi rabbi mu tuggee seen borom laa kaloo kon ñu lekk min fooqim seen kaw wa min taxta arjulim ak seen suufi tànk bu ngeen ragale yàlla rek yàlla jox leen wërsëg yu jugee ci kaw ak yu jugee suuf loo amiloo buñ jëfe woon bi maar si doom ci la jubal na leen ilay jëm ci moom tawraat tawraat wala injiil ak injiil min imaani ci gëm bi muhammadin ci muhammad sallallahu alayhi wa sallam la fataa kon mu bi àllaa yàlla ci ñoom wa wasaa mu ci ñoom fi ci wërsëg waa faare mu bëbbal alim ci ñoom min kulli jihaatin ci bépp wàll kon bunta wërsëg ngoogu may ragal yàlla ak gëm ko ak di ko jaamu boo sonn ci topp yàlla sonn ci wut wërsëg te doo ko am <clears throat> yow mi xëy suba teel sedd bi di la sonal nga gàddu bagage diis wala daal nga daj coono ak coono yi nu mën a toll jël def ko ci coono yooyu di liggéey ba naaj bi tàng ngay ñaq wala nga daj ci daj gàllankoor yu ne ak coono yu ne te mënoo am dara mën yoon waa ngi nii rek laa wax de yoon wi mooy lan mooy ragal yàlla jëfee ndigal yi bàyyi tere yi soo ko defee ba góorgóorlu ci bu la yàlla gërëmee rek dana la yaatalal wërsëg muddi keele ci wàll gu nekk rek laa wax de kon dima liggéey waaye boo bëggee bunt bi hubbeeku boo de ci ragal yàlla rek laa wax de waaw ndax boo ragal yàlla yàlla nee na kooko ragal la fata kon mu ubbe an laa yoraa lim ci ñoom dana la may ubbee wa wasaamu yaatana alim ci ñoom fi risqi ci wërsëg waa faare mu bëbal wërsëg bi alim ci ñoom min kulli jaatin ci bépp wàll de nem coono mënu ñàkk nag sonnal ci lu lay jëriñ mooy coono bu àndak rek sonn ci jaamu yàlla de minum am am na ci ñoom ummatun ak kuréel muqtasidatun gaa ji mandu de maanaam gaa ji jub am na ci yahudi yi kuréel goo xam ne jub lañ ni ko Abdullah ibnu Salaam moo tax ma naam waaw fii am na ci ñoom jamaatun mbooloo taamalu danañ jëfee bii ci tawraat ak injiil woom ñoom mooy Abdullah ibnu Salaam ak ak kuréelam de ñoo gën a rafet ak tagg ci alxuraan wa kasiir ñu bari minum ci yow di saa ak bon na maa yaamaloon la def de ñu bëri ci yow di nag jëf yu bon rek lañ nekkee ci kaw suuf إن أريد الإسلام ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته